ne weeru koor di weeru jaamu yàlla di weer boo xamante ne weeru weeru weer bu metti la te ñu ngi ci contexte bu doy waar muy contexte Covid 19. barki démb lañ fi jóge waa gox bi sargal ñu barki dem lañ fi lañu fi doon sargal lañu doon sargalee nag suñuy activités yi ñu fi doon def pendant des années moo tax waa gox bi sargal ñu donc làbbali fas day tax fas gën a gaaw donc ci ginnaaw sargal boobu lañ fi dellu siwaat tey. niñ ko defee ci ay ci ci weeru koor ñoo indi suñu ndimbal taamoowuñ nag di ko wax parce que tamit am na yu baax yoo xam ñu ngi koy def mais bëgguñu di ko wax mais souvent lu baax il faut nga koy wane pour nit ñi mun cee roy tey nag dañ fee indi ay ndimbal xeeb nañ ko lool ci wàllu ceeb ci wàllu kii macaroni ci ay ay tàndarma ci suukar ci lépp la xamante ne tey day tax nit mu mën a dog kooram ñu ñëw nag dellu si jàppale tey waa Yëmbal Sud jàppale tey jullit yi jàppale tey sama dëkkandoo waa Afia yi di waxaat ne barki démb gis nañ dañoo jóge ci conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes gis nañ ñu valider programme boobu muy tey ndaw ñi am soixante cinq mille emplois président wax ko ne si biir 65000 employés am na am na 5000 jeunes mais dañuy war a taxawal taw taxawaay yoo xamante ne tey ci emploi yooyu tey ndaw ñi dëkk yëmbal ndaw ñi dëkk fii tey mun a am ci emploi yooyu financement yooyu président de la république prévoir ko ci jigéen ñi ak ci ndaw ñu fii au niveau des Zafia am nañ fi ay ndaw ji jàmbaare lool am nañ ay jigéen aussi tamit dañoo jàmbaare lool donc ñun tey suñu taxawaay tamit au delà du social au delà de suñu activité yi ñu def def def benn politique boo xam ne tey dañuy fexe lépp lu présenté programme bu mu mënta xaatim suñuy dëkkandoo suñuy am di jàmm ñëpp ñoo xam ne foofu lañ dëkk ñi mun ñu mun cee am parce que nag gën a jege gën a yey nit ku ne lo foo lo sénégalais lañ ñëpp mais tey nit ku ne boo sañoon tey bu séddalee bu ñëwee day day commencé say dëkkandoo donc moo tax programme boobu di président validé di euh, di euh, partenariat public privé boobu jógee ci un milliard ba quinze milliards soixante cinq mille emplois yi ak financement des jeunes yi ñi ngi ñaan monsieur le président de la république ñi ngi ñaan tey euh, ministre yi yor wàll boobu ñu ne leen yëmbal tamit ci Sénégal la bokk yëmbal ci département de Pikine la bokk yëmbal aussi tamit ci ci coin boo xam ne tey tamit am na ñoo xam ne ñu ngi fii jàmbaar nañu liggéey nañ ba am seen yi lijaasa dañ ko soxla liggéey amaana nag am na lu fi président def lu bëree bëri bëri bëri bëri tey mun nañ ko mun nañ ko citer donc weesoo loolu duñu yàggal kàddu bi di ñëwaat ci dans le cadre politique di waxaat ne man APR la bokk man ci njabootu président de la république la bokk man ndaw président de la république la du ma ndaw benn ministre du ma ndaw benn directeur du ma ndaw kenn ndaw Macky la ci liggéey lañu nekk président nag liggéey la ñu sant mu neewuñu xuloo mu ne wuñu xeex man samay si sama karaada bal mais lu ñu mu ne mooy xuloo xeex pour jëlee fi xiif bi xeex pour jëlee fi askan bi ci ndóol xeex pour ndaw ñi am liggéey xeex ci femmes yi am financement xeex pour bu nit feebaree mën a faju xeex ci jamaa yi jumaa yi am ay tapis yu baax xeex ci jumaa yi am sóoróol xeex xeex ba ba ba condition de vie yi mën a améliorer donc maa ngi woowaat sama camarade de parti di woowaat la coalition Benno Bokk Yaakaar ne leen ku ci nekk moi je suis candidat la mairie de Yeumbeul Sud te ku ci nekk na nga jàpp ne yow candidat nga à la mairie nga jàpp ne élection yi nga def nii bu bu jógee bu jóg-jógee mu mun a yomb ci ñoon ci ñun lool donc di ñaaxaat sama mbokku policiers yi di ñaaxaat sama mbokku dëkkandoo yi di leen ne man xuloowuma xeexuma man ci lii laay xuloo ci lii laay xeex donc kum ci nañ nañ xuloo pour génne askan bi ci ndool bi nañ xuloo pour jàppale jigéen ñi nañu xuloo pour jàppale ndaw ñi parce que nag dama ko fi waxaat président mënu laa wóolu jël la dëkk jox la ndombal tànk ngay fayeeku ci impôt sénégalais te doo ci dimbali sénégalais lool loolu man gëwuma loolu li ma gëm mooy ñàkk a li ma gëm mooy dimbale li ma gëm mooy social te man Omar Sow lii laa gëm maa ngi gërëm ngi gërëm nag toute la presse maa ngi gërëm bàjjen gox yu fi teew yëpp les relais communautaires samay camarades de parti samay camarades de la coalition maa ngi gërëm Djibi Diaw mon mm. frère maa ngi gërëm monsieur Daouda Ndiaye ñoom ñëpp ak sama ñoom yaay ñu baax ñom ñoom ñoom ñëpp parce que ku lim juum mais di waar une fois de plus nañu am taxawaayu président de la république nañu yor jikkoy président de la république nañu yor taxawaayu président de la république président de la république liggéey lañ ko xamee mais tey bu ñu demee ba askan bi xaw ñoo jëppi ñun suñu taxawaay moo baaxut parce que ñu ngi xuloo suñu biir ñu ngi saagante suñu biir ñu ngi tegante ay pot de suñu biir te te loolu jaadu wut ma ne seentu asamaan jarte buuxante fii ku mun na nga ñëw def nañ leen xuloo ci lii moo am solo lii lañ président sant man nag ci loolu laa nekk nekk nekkuma ci leneen e pour le dire encore une fois maa ngi leen di sent di leen gërëm di baalu àq ñëpp ci weeru koor gi di profiter aussi di baal àq ñëpp di naan yàlla nañ yàlla nangu suñu koor yàlla jéggal suñu bakkaar le président Macky Sall nag yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla oyofal yéen bi te pour man 2024 président Macky Sall mooy sama candidat dama koy waxaat fii mu leer parce que nit nit bu la joxee añ bu la diggee bu la diggee reer nga gëm ko am na lu fi président def donc man maa ngi ñaanal président Macky Sall mu am deuxième quinquennat parce que man loolu laa gëm ci ci loolu laay dox ci loolu laay liggéey